ay waay féexal sab xol ah original neexal pot te am na gu original 100% pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw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 jëf mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi ñoo leen nuyu bu baax baax di leen ziare kii ngeen jàkkaarloo xam ngeen ni lundi bi passé leerawul woon nii ndax amoon pression amoon stress ndax Ibrahima John la doon waaj a bëreel moom nag combat bi doon na neexal mais doon na ma wax nag combat dëgg lañ am ndax gëmoon na ni Gris Bordeaux champion la moom ma koy wax ci suuf waaye teerul boo ko taalee kii bi tamit mu jaay li nga xamante ne moom mooy combat yàlla dogal na nag am nañ ndam ci kaw ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux coow li bari na Ama Baldé nee na dafa bëgg tooyal xaftaan bi nu mu gën a gaawee novembre wala décembre soo ko dem bëri ji ak ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug mais Ama nag ki fi ñëpp bàyyi la ni pare na pour jàmmaar la ak fit woowu may gis ci Ama Baldé di ko gis ci manager am di ko ci waa Kër Fallé Baldé man daal loolu moom may yëm moo tax nag ma lay féliciter Père Bakhoum di la ziyaare bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. merci beaucoup Lamine maa ngi lay fay bu baax di la itam bu baax a baax di wax rek ne. ak asa bala may jëm fenn damay damay jëkk a wax ne sama ñaari doom yi doon bëree rawatina nga xam ne mooy Gris Bordeaux di ko encouragé bu baax di félicité ki ko mel ne Ama Baldé nga xam ne moom itam xam na ne magam la doon bëreel. Mhm. làmb nag Lamine. Mhm. xam nga li nit ñi xaw a desee xam mooy. làmb bu combat taxawee. tey jii ama bu combat taxawee ak ku mën a doon itam. nii médiation yi ñii ñuy def ni noonu rek lañu koy defee ba lu ci ëpp promoteur bi man di gis boppam. làmb mën di ñëw di seetaan si événement yu neex. mais Gris bu doo ngi koy encourage bu baax a baax. ndax sama rakk la yéen saa sax gars yi gëdd ma ne ma yow da ngaa may doo da ngaa may Gris Bordeaux jàmm lool. waaw ma ne non Gris Bordeaux sama mbokku sama mbokku séeréer la. Uh-huh. moo tax duma ko duma ko mën a tànn xel waaye kàttanu yàlla bu ñu ñëwee ama daan ko. mais loolu itam ku mu mën a doon it bu ma amoon combat keneen it nii rek la. Mhm. te it jàpp naa ne giri xale la boo xam ne bii bu ko kenn bàyyiloo làmb. Mhm. teel waaye teel na yu itam giri xale bu ndaw la. ngir xale bu ndaw la ba pare mu ngi entraîné entraînement yoo xam ne yu tànn la attention lii mu bëreeg ama bu ko tegee xale yii ma gis nii ku ko ci teg nga bàyyi de. Hmm? ah maa la wax fii loolu kay loolu la ko dëgg yaakaar nga ne li ama dékku. li bu ama dékku xale bu ko dékku ci xale yii nga wàcc. ama jël nañ ko ba yàgg proté. ah gii. mag la moo xam ne mi bàyyiwul boppam. mais ama bi mu jàppee protestant bi noo def. waaw noonu loolu ama dañ leen bëgg a wax ne combat bi ak fu mu toll noonu ndax gis nga ne biñ njëkkee jàppante ama jàppul ba yekk giri am na fu mu jàpp ba sori. ñu bo eh, jege boori saako ya gis ne bi am tegee tànkam sax di jéem a porter prise fekk na benn tànk bi génn ba bi dellu si waateen mm-hmm. am am na euh, benn avertissement mm-hmm. kon donc bëre bi amoon na naxante tuuti amoon na force nag mais amoon na naxante mm-hmm. ndax Gris Bordeaux kuy bëre moom da nga war naxante moom ba yegg si fi nga war a si booy xeexee ak moom itam te ñemoo jël kuwam doo ko touché lu leer la la wax boo Bordeaux képp kuñ ci ku mu ci touché touché baat la amoo jom amoo kattan nga ko moo dëkkërloo mën ngaa wàcc de wala nga jébbalu si ko mu jàppale daan la. mën a xeex. non xeex bi foo ko takk non da foo ko takk giri mën naa xeex ñeme na. waaye ama na. non loolu kay ñaari jàmbaar doon bëri ñaari jàmbaar kay noonu mu nekk ba pare kii gën a nekk ndaw. xam nga dóoru mag dóoru xale day xaw a wuute nag ci ay safin caf ya caf ko mais loolu war a coup bi jël ba giri jël euh, jeexal làmb ji. Mm-hmm. da ngay seet ne xeex nañu ñaari yoon kenn ku ne jël na ku ngir mhm. jël na ñaari yoon coup ama jël na ñaari yoon ku yu tegu ci yoon. Mhm. mais xeex bi nga xam ne bi moo jeexee bëre bi mooy giri remise bi nga xam ne moom la doon dóor gars yi dañu ko dóor remise parce que giri nag ñun dañ koo jàng ba mokkoon xam ne ah, moom ah non remise boobu nag giri loolu doon xeexee léegi ñu ne ko da nga ko jëkk ci remise parce que ñaar pied it ñoo jàkkaarloo ñaar pied droit ñaar pied droit la léegi remise la doon léegi bu fekkee ne moom bu fekkee ne mënoo koo croisé mënoo ko croisé léegi fi ngay fi nga war moom parce que booy xool ama ah, sut relance ki nga xam ne kon mooy Gris moo ko moo ko sut loxo moo ko sut relance moo ko moo ko moo jot moo ko gën a jot loxo ci fànn bi loolu war a remise boobu am da ngay gis ne ama sax yër na ko pour mu mu mu déclenché ñëw mais nga gis ne Gris daa def réserve tam itam di xaar remise bi bi ko ama cookaasee génn sori ko ba mu jëli si waat di jéem a jël si sax pour ama indi loolu mu doon remise ama faral mépp ko Gris génn turaat bi mu mu moom dóor ko remise loolu waral Euh, coup boobu mu jël bi ñu jàppante rek xam naa ne bi ñu kenn du def dara ndax xam naa ne boobu làmb ji jeex na. Mhm. lu leer. làmb ji jeex Ama Baldé toog ci plateau bi ni Eumeu seen moo suñu mag te dégg na ni Franc dafa def benn déclaration ni Pikine kenn mënu ko faa daan gën dégg mu wax ki àll ni nañ ko jox avance bi Pathé Baldé si gis naa ko mu def sorti ni Ama Baldé wax na ko une semaine avant muy bëri Gris Bordeaux. waaw loolu dëgg en Franc laa bëgg a bëri. parce que dañ ne Pikine ko fee daal. waaw loolu waxi waxi Franc rek la. Franc am nay adversaire yu mu am. fii au niveau de Pikine am na Pokola. ndax non xaaral rek da dañuy waxtaan dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan parce que gétt boo fa demee fàdd fa fàddaat fa fàddaat borom gétt gi war naa génn wala mu wala mu génn ku la mën a fàdd ni moom. mais ama nee ma wax Pakola dafa dugg far dafa dóor fa nii mu nelaw. far daat dóor moom kenn moom far Franc doogul kenn mbër mu daanu. mais Pakola daa dugg parcelle dóor fa ñii ñii mu gën a jëlee daan jël yu rëy. non non non non non non non non ku irrégulier la dóor Tyson 2 parce que loolu ko dóor te loolu eh. teñ teñ ko interdit man bu ma yóbbu woon bu ma yóbbu woon Tyson 2 ci lamba jooju la combat bi dinañ ko rajo ba dégg-dégg coow du jeex mm-hmm. ndax bañoo ci dara mm-hmm. non loolu amul bokku ci. mais da nga gëm ni ko mën. non da maanaam da dul même moo moo ko mën fukki yoon. Ah. waaye dama la ba nga xamal ne. Franc daanoogul de. dama ne Dour Sané mi nga xam ne da koo tangal bu ñëw Dour Sané moom Franc ne taxaw ne ñemewuma Dour Sané ñëpp di ko dégg ñemewuma Pokola ñëpp di ko dégg bu fekkee ne bu fekkee ne nag Eumeu Sène la ñemee yaa ma dégg Eumeu Sène du bëre ak moom bu ñëwul ñaar yooyu. ñu jéem a seet legi léegi nu muy def ba dugg ci boo ñaaw ma dug ci ah ma bal de. ñoo naa def. Franc est-ce que ñooñu Franc douze fan. diisul ci Boy Niang ak Ama. <coughs> ah. Franc itam. de moo Ndiaye bébé Saloum xaw na laa rey fii. nga eh? naa ma nga naa ma nan ngadd benn màggat la bëre fii màggat mi ngadd ko muy kayen kayen fii bu du. Franc Ndiago or ngay wax de. Franc Ndiago Bombardier mu ko teggee ku tuuti mu nelaw nga naa ma nan ci boori xanaa yàlla def jàmm rek. waaye bu ko ah. teeloon bu ko jàppatoon nga xam. mais Franc mu ni cër. ci wetu Ama Baldé. Oh, yow ban jeex da ngay da xam na xam yu jàpp ama mas ngaa gis ku jàpp ci wetu ngemb mas nga ko gis yow. mais bu dee Franc ne ciix ci ngemb. da fooy ciixee xanaa bala gën a ciix defa na dem ci dur saane ba pare balaa ciix kenn na dem ci dur saane ak pokola ba pare. non nañ wax ci li nga xamante ne mooy actualité parce que. Ama Baldé actualité bi li gën a wóor ma su ko bëggee su ko bëggee ama mel noonu xale bu ndaw la. es ce que Franc màggu ah, ko est lay def dafa xam ne dafa jàpp ne Franc sax ko man jàpp ah, non xam ne moo ne man nee na leen bu ma wéree ma góor a man seet waa ji yi nga xam ne ne mooy sëriñam ba mu ko tëggee ko daa jébul si Modou Lo ko ko mos a dóor ko mu tëdd fayeku day xeex sa yow. ah Modou ah, waaye Modou ba mu jëlee ko daa jël daa de. waaye Franc du Modou daa si de. Franc gone la de. ah day moroomam xam-xam si xeex ci bëre Modou Lo ngay dëkkale kay franc franc mais. franc xam Modou Lo leb <laughs> itam. njaago or bi ngay wax de. njaago përëm nga naa njaago or <laughs> njaago or la or. non non non njaago njaago or kay buy am xam naa li si lay doon li si njaago li si njaago de laa gën a dégg moo gën a nekk or. mais père xam nga derby euh, parcelle. Pikine dafa garaaw. non amul dëgg. man mois de novembre wala décembre ban côté ngeen nekk sax côté bi war bi. non dama wala léegi yéen yéen a ngi fële. non fu ñu ñëw baax na. non yéen côté bi bale na. de lu tee. dem leen fee oh, oh, dama ne. waaw foofa noonu boo ñaa si na fa est-ce que tax naa am ndam. ah mais yéen mi ngeen ko ñemee dafa neex. déedéet dama ne boo ñaa damaa sumeeku bu yàggu rek jëlee fa dépét ama sumeeku ma jëlee fa dépét. bi ñëwee fii tam tirage au sort la. Mhm. kenn ku ci fañ la jox rek ngay bëree. waaye kon imagine ñu joxaat la fële mois de novembre jox fara fi euh, mois de novembre. non non buy bëreeg Doudou Sané lay doon looy doon lay bëreeg Doudou Sané ba pare. Ah, mais non non combat bi non Doudou Sané lay bëreel bu bëree Doudou Sané du fa bëre kenn. Franc fan la demagum ñun duñu mbooloo mi nga xam ne day jox ay ay sens yoo xam ne bii duñ def lool de Franc bëreegu ko fekk kenn. léegi bu ragalee Doudou Sané ak Pokola nga ne. kay taxaw na man ñemewuma bëri ñoom ñemewuma leen. su ko defee nga jox ñu jéem a seet nu ñuy def léegi bu ñu bu booñaa bëri ba pare ama bëri ba pare ñu a seet fu koy dugal moom. moom kay nee na bu ñu ko joxee ñaari avance mu jóg. déggoo li ma wax. ma ne waaye dama ne kenn du ko fi jox benn avance sax. te bëriwul ñett la bëgg nee na Eumeu Sène Boy Niang Ama Baldé. dama ne moo ak ku mu mën doon balaa bëri kenn day bëri Doudou Sané bëri Pokola ba pare doo ko seet ñam na Pokola Pokola dóor la ko fu nelaw fii barki Demba Ndiaye hmm. ngàdd te da koo coob sax ndax doot da ko dóor yóotu ko góor mu nelaw. non Pokola Thiat Daouda Fall mooy làmb. Ah, waaw mais loolu lépp làmb la. wala Pokola Pape Ndoye. loolu lépp làmb la nangu d' na nañu ñun ñëpp làmb la waaye jam ci kàttanu yàlla dama ne man seen bii man waxtaanee yow la mi yoraat nga yor ko di ko dawal loo ma ci laaj ma waxtaan ceeg yow. ndax seen bii dinañ ko seetaan mooy mooy bi ko yor. kontaan naa ci moom de kontaan nee ne Ibrahima bëgg naa ci yow waaw waaw nee ko maa ngi koy gërëm mu ngi fii maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax kontaan naa ci moom trop kontaan naa moom ci trop ndax euh, wax dëgg yàlla euh, moom liggéey bi muy def sell na set na te ñi mu dugg ci terrain bi ñuy liggéey seen liggéey xam nañu seen liggéey surtout yow kontaan naa ci yow Lamine lamb ak kontaan ci yow sa waa ci lamb rafet na li ngay def teg teg nga ci yoon ci xam-xam ci yar ak teggin mag moo dëkk micro dina waxtaan ak yow ndax yow yow ci sa bopp yow yaa yaru yow yaa baax yaay ki nga xam ne kii mën nga waxtaan ak mag waxtaan ak ndaw mën na waxtaan ak say morom man na waxtaan ak say rak kontaan ci yow ay waay féexal sab xol ah original neexal na pour cent pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw salaam tout le monde ñun équipe nationale kickboxing bu Sénégal ñu ngi leen di jox rendez-vous le 5 le 6 le 7 juillet fii ci de souvenir festival Eric Favre sport santé international